salaatu llazi fi kulli bisaarin wa fi safar amaani ala maahin waaw santaat yàlla bu baax a baax ginnaaw ba ñu ko waxee rek noonu rek lañ koy daal di defee Assalaamy TV ak Assalaamy FM Euh, nee naa la ñu ngi si euh, li nga xamante ne mooy màggal Touba 2024 euh, fii ci Assalaamy TV waaye tamit ñi ngi fii nga xamante ne moom mooy Daaru nam nga xamante ne Daaru Minam ku ko wax rek wax li nga xamante se ni moom mooy pencum Serigne Bassirou ba aussi tamit ñi ngi fii ci nga xamante mooy kër soxna Awa Djili Mbacke nga xamante ne ku ne xam na taxawaayam fii ci kër Serigne Touba rawatina tamit kër gi nga xamante mooy kër borom këram gis ngeen tey gan yaa ngi bàyyeekoo fu ne di ñëw si dëkk bu sell bi di Touba Jili Mbacke mu nekk jigéen joo xamante se nii jigéen ju mën góor la jigéen boo xam ne social rek lay def jigéen joo xamante se nii nee naa la euh, topp topp si li nga xamante mooy euh, di dimbali néew gi doole yi rawatina ñi nga xamante se moom mooy jigéeni Sénégal yëpp euh, dañuy dem rek du biir xool ki nga xamante ni moom mooy soxna Awa jiili Mbacke mu daan ñuy wax nan la préparé màggal gi nan lay dundee tamit màggal gi ak ay ganam ak tamit lan la ci programme sama caméraman di Habib Thiam nekk fi nga xamante ne moom mooy Assalaamy TV kon topp ma sëñ ñu dem xooli soxna Awa aca ñu dem وجاءت كل بحمد وسكون waaw comme ni ñu ko waxee rek ginnaaw ba ñu présenté euh, fi nga xamante si moom mooy suñu ouverture euh, jëmale ko ci li nga xamante ne mooy màggal euh, Touba 2024 fii ci kër sëñ Jili Mbacke nga xamante ne bu ñu nee Jili Mbacke waaye tamit kenn du fàtte soxnaam su baax si muy soxna Awa jiili Mbacke nee naa la soxna Awa Jili Mbacke boo gisee li nga xamante ne moom laa yor ci ndox ay nataalam ak ki nga xamante ne mooy sëriñ bu tedd bee ci nekk ba tax na tamit ñu nekk ñi nga xamante dañoo préparé li nga xam moom mooy màggal gi parce que saa boo ñëwee kër sëñ Jili Awa sëñ Awa Jili Mbacke rek rek da ngay gis ne euh, maanaam innovation day am ak yeneen yi nga xamante se ni euh, moom soxna si euh, mu ngi koy def lépp rek liggéeyal xaadim rasul liggéeyal tamit ki nga xamante ne mooy borom këram di sëriñ Jili Mbàkke yàlla fi yàgg lool te wér ak ñi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci kër gi booleem ñi koy jàppale ci liggéey bi comme ni ñu ko baaxoo Assalaamy TV ak Assalaamy FM nekk si rajo bi aussi tamit dañuy accompagner ki nga xamante ne mooy soxna Awa Jili Mbàkke ci màggal Touba 2024 nee naa la fii boo fi ñëwee dara manqué wul ndax boo xoolee ndab yi ngay gis ndab yu yàññi la nga xool niñ ko defaree euh, mu nekk loo xamante ne lu exceptionnel la lu raar la ndax dangay ngay gis nataalu euh, ki nga xamante ne mooy Serigne Djily Mbacké waaye euh, tamit nga gis nataal ki nga xamante ne mooy soxna Awa Djily Mbacké tubarkalla ci social bi ci li nga xamante ne moom lay nangoo def di ko sonn ci ñi nga xam ne mooy jigéen ñi rawatina ñi nga xamante ne seen doole jotul seen ginnaaw waaye lépp rek di liggéeyal Xaadim Rasul di liggéeyal boroom këram soxna Serigne Djily Mbacké loolu tamit mu nekk lu am solo fii ci Touba ak tamit li nga xamante ne mooy Ndakaaru Njaay mu nekk monde moom soxna Awa euh, Jili Mbacke ba tax na dañuy ñëw rek euh, ñenn euh, am na benn suñu benn yaay boo xamante si nii moom mi ngi toog daal di muuru sol li nga xamante si moom mooy vaalam bu rafet suñu yaay ñi ngi lay nuyu di la ziyaare di la jox sa wàcc wàccuwaay bu la suñu borom jox di wax rek yaa ngi fii si nga xamante si nii moom mooy kër sëñ Jili Mbacke waaye tamit nga nekk fi nga xamante si nii moom la soxna awa jili Mbacke euh, def li war koo liggéeyal sangam bi nga xamante ne mooy Serigne Jili ak tamit maamam Khadim Rasoul suñu yaay ñu ngi lay nuyu di la ziyaare nga wax ñu tur bi ak euh, sant bi. asalaamaaleykum maay Aji Maane Ndiaye yaayu awa Serigne Jili euh, dama koy jàppale rek ci bis bi ndax bëgg na boo dee jàmbaar soo góor góorgóorlu ba ñu xam ni jàmbaar nga rek. te ku dikk xam ne fii mu ne nii jàmbaara fi tee nee naa ko fas si kursu yi li mu bari bari bari mbayaara ci sut waaw te yow mbayaar nga sa gërëm na la sa baay gërëm na la ma ne la boo demee kër jiili na nga fexe bañ gërëm la mu fexe bañ gërëm ku fii maa ngi sant yàlla ak yonti yàlla Muhammad waaye dem naa ba Màkka di ko ñaanal yàlla bu ko ay moromam raw ci barke Muhammad ndax teg na ma fa ma war a teg su ma fi tegul woon su xewlee du ma ñëw waaye dama ma feebar teg lu ma war a am wala lu ma war a xalaat dana ma fekk sama kër kon nag maa ngi koy ñaanal lépp li mu sumb yàlla na ko yàlla yeggale te yéen ñi ngeen xam ne yéen itam yéen a ko fekk si yal na leen yàlla jàppale sëriñam it gërëm na ma teg na ma ca kaw sant naa ko gërëm naa ko yàlla na ko yàlla jàppale ci barke Mouhamed maa ngi koy ñaan sallallahu taala alayhi wa sallam jërë ngeen a jëf. màggal gi tey kër sëñ Soxna aw Jili Mbacke dina neex. màggal déggoo ma ne la fasi course lam daw daw mbayaara ci daw kon kay jeex na mbayaara ci daw sa jili moom macha allah lu mu sumb rek yàlla dana ko yàggale jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku nekk waajur euh, bu si euh, soxna Awa euh, bu Jili Mbacke mu nekk lu am solo waaye gis nañ keneen koo xamante ni mi ngi sol benn val bu rafet moom it xam naa ne du ñëw dina ñëw joxe rek di rakk soxna Awa mu Jili Mbacke ba tax na soxna si mën nga ñëw taxaw ni bu ko defee ñu daaj lee quelques questions ñu la mën a laaj rek ci loo xam si sa mag. Euh, euh, tey ngeen euh, laxasaayu tey doon Baay Faalam di liggéeyal ki nga xamante ne moom mooy Serigne Touba di liggéeyal tamit boroom këram di sëñ Jili Mbacke waaye tamit di liggéeyal ki nga xamante si nii moom mooy soxna Awa Jili Mbacke fii ci Touba Mbacke soxna si ñu ngi lay nuyu nga wax ñu tur ak foo baax. waaw maa ngi lay fay man la soxna Awa Dieng maa ngi bàyyi ko kaw la di rakk ci soxna Awa Jili ñëw rek pour jàppale ko ci bésam bi ci bésu bi mm-hmm. santale ko yàlla ak bi mm-hmm. mag ju baax la mhm. mag ju ma bëgg la mhm. at mu jot nii lay def mhm. damay jóge kaw la tëj sama kër ñëw di ko jàppale ci liggéey bi mu bëgg ma torop ma bëgg ko torop yàlla boole ñu waa ma koy ñaanal yàlla lépp lu muy sàkku ci bésam bi yàlla na ko ko yàlla may waaw sëykat la muñkat la waaw tarbiyukat la lépp lu mu am rek jox na ko sëriñam waaw di sàkku barke di sàkku ñaan lépp nag ñuy sant suñuy waajur rek te lépp waajur yi ñoo ko waral di sant suñu yaay fu ñu dem mu fekk ñu fa di ñu ñaanal di ñu tette di ñu gunge ba ñu ñeme waaw jërëjëf Euh, jërëjëf euh, kooku di rakkam euh, di soxna Awa Jili Mbàkke jóge fi nga xamante ni moom mooy Kaolack ndàngaan ndax ku ne Kaolack xam ne Kaolack sori na Kaolack yoon bi metti na waaye tamit niñ ko baaxoo di defee rek olof dafa ne lu juddoo si tàgg bu naawul rek jaaxali mbokkam tubaarkàlla macha allah rafet na ànd bi waaye lépp rek ki ko waral moom mooy soxna Awa Jili Mbàkke tubaarkàlla macha allah nee naa la màggal gi maanaam li mu ci def nee naa la saa bu xëyee rek saa bu màggal jotee rek day gën a innové gën a yaatu day gën a baax waaye tamit dañuy continuer rek ci li nga xamante ne moom mooy fii ci kër sëñ Jili Mbàkke waaye tamit fii ci kër soxna Awa Jili Mbàkke ñu daal di ànd ak Assalaamy TV sama man kooku di ah, sëñ Habib Thiam ñu ma topp ak ki nga xamante ni moom mooy ma Massamba ci waxukaay bi waaye fii lay xewee acca ñu daal di continuer xuusaat tuuti xool li nga xamante si ni mooy yeneen gan yi nga xamante ñi ngi jóge ba Gàmbi ñi jóge fu ne ñëw fi nga xamante ne mooy kër soxna Awa Jili Mbàkke kon boog bis bi du yomb kon boog bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman rabbi bima yasra'u al-asqana qad fajaa الأفضل لمن لله قد لجاء أمني لرب الكريم لا شريك له وسادر اليوم نورا ساتيا ملا محمد صلوات الله في الأباد لي في اسمي كل بك لا أدعو إلى الذي أمن موائبه لجملة الخلق من يختار من براء ناجيت خجل أخ ومن وكارغمني تغريم قاد وكل من لقد بريان رحمن قبل الجميع الخلق رحمة من يغمي أني سر من قرآن أو خرا ختومة المستوى عن كل مفسدة ودار أمي خلق يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل عن خوة ارحم جميع الورى يا خادي الردى ما خوت ما قد نخا كل قلب من درل بجاي أفضل لمن لله قد لجا سرنجي ليا ديب غور ديب سانغ خم ترانغ تخر baa jili mbàkke yow kër gi sëdd nga neex meññeen mbàkke te door ak itam fiix nga sët yaatu lewet yaa baax ci waaju tële sëx jili mbàkke gelongal ne ñu mbalaan muccul ñoo doo di xaral ndax yaakaar yi ñëpp nga doo gantu doo dikkle ixdaan wa rahmadan minallaahi ba di jërë ngeen jëf yàlla bu baax di julli ci uh, rasulillahi sallallahu alayhi Euh, di sant bu baax a baax mbooleem euh, euh, leeru xaadim rasul yëpp rawatina set yi comme ni ñu ko baaxoo di defee rek ñi ngi fii kër sëñ Jili Mbàkke nga xamante ne macha allah ku ne xam na ko ci taxawaayam ci diine ku ne xam na ko ku ne xam na ko ci taxawaayam fii ci fi nga xamante ne mooy diggante kër baayam ak ñi nga xamante ne mooy njabootu xaadim rasul yëpp ci xam-xam bi ci dal gi Euh, waaye tamit euh, bu ñu waxee euh, sëriñ Jili Mbacke waaye tamit dinañ wax ki nga xamante mooy soxna Awa Jili Mbacke tubaarkàlla macha allah nee naa la kooku dafa jaay njureelam jëndee ko taalibe ndax lan ndax fonk borom këram tar bi borom këram. moom du soxna taalibe la ba tax na loolu tamit dafa am solo ndax dañuy wax rek soxna Awa Jili Mbàkke xam nañ ko ci social xam nañ ko tamit ci li nga xamante ne mooy yërëm néew yu doole yi xam nañ ko tamit ci développement waaye tey muy màggal fii ci kër borom këram bu tedd bi nga xamante ne mi ngi nii toog euh, euh, mu làq ngërëmam ginnaaw bu ñu jugee ci waajuram bu jigéen tubaarkàlla macha allah euh, nee na man dama koy ñaanal ndax fasu course moom buy daw da nga koy da nga koy ñaanal rek ndax amul lenn loo xamante ni gis na ko ci moom ci lu sikk ndax fonk na ko fonk tamit ki nga xamante si nii moom mooy euh, borom këram te tamit boroom këram euh, fonk na waajuram te xam na fu mu ko teg muy Serigne Djily Mbacké di ñaan rek yal na yàlla fanam ci barke maamam Xaadim Rasul euh, dañuy ñëw rek te ki nga xamante si nii moom mooy soxna Awa Djily Mbacké tubaarkàlla macha allah ci dal gi ci mbaax gi ci yaatu gi ci tamit li nga xamante mooy dalal gan yi muy màggale fii ci kër borom këram soxna Awa Djily Mbacké Assalaamy TV ñu ngi lay nuyu di la tatagal di la siyaare Mbàkke Bàlla di wax rek ne ne bàyyi la nga nuyoo mbokku téléspectateurs yi nga xamante si nii ñoo lay seetaan fii ci Assalaamy TV. Ah, maaleykum salaam ah, ah, macha allah sëñ sàmba maa ngi lay ziyaare bu baax di kontaan li ngeen bàyyi seen yitte. ñëw di ma nemmeeku macha allah fii ci waajal màggal gi macha allah ndax ku ne xam na ni màggal ñëwagut waaye màggal toujours dama naan du bisu màggal rek mooy màggal du buñ ne suba la rek mooy màggal màggal léegi dafa yaatu yaatu boo xam ne foo naa ne un mois danga ko waajal màggal macha allah kon nag euh, di nuyu Assalaamy TV nga xamante ne da ngeen dagg seen yitte ñëw nemmeeku si ma macha allah ngeen di liggéey liggéey bu am solo boo xam ne euh, àddina rafetlu nañu ko international rafet nañu ko kon bu ngeen daggee seen yitte macha allah tànn kër kilifa yi tànn kër sëñ Jili Mbàkke Gelongal mu sëñ Modou Mbacke Gelongal mu soxna Faati Mbacke moom Cheikhul Khadim kon nag dinaa ci kontaan bu baax macha allah naan leen ahlan wa sahlan macha allah. ahlan wa sahlan. Mhm. ku ne màggal ku ne màggal Touba wax ne bisu sant la mais ku ne màggal Touba wax ne bis la bi nga xamante si ni maanaam bisu berne la euh, tey ñu xool ni nga ni nga ni nga taaralee bis bi sànq sama caméraman jël na ci suuf ñu yéeg ci kaw euh, nga gis tey ni nga defaree bërëb bi mu nekk bërëb boo xamante si ni bërëb bu yàññ la euh, en même temps ñi ñuy jóge woo fi nga xamante mooy ñiy jóge Kaolack ñi jóge Gambie ñi jóge Mauritanie ak ñi jóge Ndakaaru Njaay ak yeneen raison yi nga xamante moo nekk fii ci si suñu réew tey loolu nan la def sa soxna soxna soxna Euh, yëg-yëg bi ma ci am rek euh, di santaat Serigne tubaab bu wér ndax Serigne Touba bisam bi da ko xeebalut boppam ndax daf ne jaloore borom a koy nettalil boppam mun ñu ne ko Serigne Touba sa liggéey bu mag bi macha allah bi nga dellu see ni santal leen ma yàlla ñu ne ko Cheikhul Khadim nu ñu lay santalee yàlla mu ne bis bi bu ñëwee euh, gileem ba ci naat ba ci koppin ba ci pitax na ngeen ko berndelee jaamu yàlla yi balaay boobu nag bu ngeen xëyee suba xasida yi macha allah ñu ñaan yàlla jàmm ñaan yàlla xéewal ndax xasida Sëñ Touba yi lu nee ngi ci mbóot mu ne ngi ci na ma ko jàngal sell ak yiw incha allah bu ko defee bu ngeen berndelee ba pare bu ngeen neexee nag ngeen sañse ndax cheikhul xadim ku nekk xam na ni dafa bëgg lu baax cheikhul xadim ku ne xam na ni dafa bëgg yàlla cheikhul xadim ku ne xam na ni liggéeyal na Seydina Mohamed ba dafa mujj ni man maay man maay mbindaanu yonent bi kon nga xamante ne kooku li mu wax cheikh li mu wax yonent bi ah ñu ko wax yonent bi macha allah bu amee tamit bëriwut ndax dafa xam kan mooy gëdd Seydina Muhammad liggéey bu sell bi mu defoon nag euh, euh, liggéeyal ko yàlla dem ñëwaat moo waral màggal gi tey ñu koy màggal macha allah mu ne nag berndeel leen ma naat xar pitax ba gileem may sant comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne def nañ déplacement ak dérangement juge fu nekk sànq waa Gambie soxna Ami Collé jëwrin mu ngi nii macha allah moo jite mbooloo mi euh, Serigne Mo mu ngi nii moo jëwrin moo jiite mbooloo mi nga xamante ne macha allah ñoo nekk mbuur euh, El Hadj macha allah moom nga xamante ne moo jiite mbooloo mi nga xamante ne ñoo nekk Kaolack macha allah ñoom ñëpp a nii sëñ Yes Faye mi nga xamante ne macha allah ñi jugee Dakar moom moo leen jiite. macha allah ñoom ñëpp a ngi nii jëwrin yaa ngi nii waa Mauritanie yëpp a nii dafa am ñoo xamante ne nag dañuy doog a di dallu xam nga ni màggal gi ñëwagut mais coono gi moo tax tey gisoo gisoo leen waaye xam naa ne bu subaa bu neexee yàlla di ci bisu màggal gi ñoom ñëpp dinañ teew waa Salaama TV dina leen jël euh, loolu bëgg naa bu subaa ñu def ko ndax wax dëgg yàlla taalibe yi kenn mënu leen a fay ndax bu ñu ñëwee waxuma la coono gi mais seen ñaq seen doole li ñu mën ak li ñu mënut ci bis bi waaye nag eh, cheikhul xadim daf ni bis bi xool leen ki nga xamante ne bokk nga ak nit nday ak baay ngeen nekk ci benn kër kii di jël alalam di def kii jël alalam du def ngeen xool ñoom ñaar du ñu yam mukk dayoo bis boo xëyee kii mooy gën a yokku kii te nag euh, yaram ma wax la yéen waa Salaam TV àddina nag lu lu lu baax yombut ndax Cheikhul Khadim noobule sax toog ci ker gu sedd ak lu neex may ko lii bala ngay am lu baax da ngay coono kon nag coona moo ko may tey lii kon nag moo tax képp ku màggal si bu yàlla bëggee baaxal say mbir fër fër nga coono sonn wala nga feebar wala nga réer wala nga jot coono boo xam ne danga naan excel lii ah eh, yoon wi ma jaarak ak li ma def nii parce que am na ñoo xamante ne bëgguñu coonowu waaye boo gisee li tax ngay coonowu eh, ngay dem sa aajo faju mooy seexul xadim la mu am coono moo ko ko may kon nag ñuy wax ñi nga xam ni def nañ déplacement ak dérangement jóge réew mu nekk macha allah boo demee tey aéroport yi gaa yaa ngi jóge fu nekk ndeysaan boo demee sa xol day sedd ndax ñu ngi sant Serigne Touba fu ne nga dem ci géej gi ñi nga xamante ne sa amuñu lu leen indi ñu ngi ci gaal gi di sante Serigne Touba fu ne picc yi janaaw yi ñëpp di cheikh sant Cheikhul Khadim kon nag dama ni jërëjëfe cheikhul xaddim waaye jërëw lakke cheikh Ibra Fall mi nga xamante ne nee na man cheikh Ibra euh, yoonu murit bu doon wifi man cheikh Ibra code bi maa ko yor kooku mooy sama maam macha allah kon nag ma kontaan bu baax ki tax réeré wuñu cheikhul xaddim ki tax ñu xam kuy cheikhul xaddim kookooy cheikh Ibra kon nag loo sant sant Serigne Touba da nga ci toftal cheikh Ibra ni jaraw lakke cheikh Ibra jaaraama cheikh Ibra Fall njëga yaaram tubaarkàlla macha allah waaye tamit euh, comme niñ ko baaxoo di waxee rek ci teem témoignage bu am solo bi nga xamante ni soxna euh, Awa euh, Jili euh, Mbacke Baye Fall waaye Baye Fall gi nag moom ma ci xawoon a réer ndax bu mu dafa laal ku ku jara laal muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine nga xamante ne kooku moo xàll yoon bu rëy bu yaa jëm ca pays yi màgg ya ba ñu mën a jot ci xaadim rasul kon kooku kenn du moom mu teg maamam la mais lan mooy indi sabablu nga ne soxna Awa Jili Mbacke ba teg teg ci Baye loolu tamit bëgg na mu leer ci mbokku téléspectateurs yi euh, balaa ñoo jox euh, kilifay yi euh, kàddu gi. sëñ bi kontaan bu baax laaj nga lu am solo waaye olof yi dañuy wax ni ku gis sab sang na nga jaamu lu ko may nga rawle ndax toujours dama koy wax naan ko wax dëgg yàlla nag xamuñu sëriñ Bamba gisuñu sëriñ Bamba waaye yaay suñu buntu ci Cheikhul Khadim man de soxna Awa Jili dama naan ko rus naa nekk fii Touba. nga dem ziyaare Cheikhul Khadim ñëw ma neen ma dem ziyaare Cheikhul Khadim ñëw dafa mel ni gëw ma li ma doon barke Cheikhul Khadim damay bàyyi nga dem ziyaare Cheikhul Khadim boo ñëwee ma ziyaare la xamul lu tax mooy Cheikhul Khadim mu ngi fi demul fenn bu ne woon tël fii moom mi wallahi la toogaayam bi di ko changé ci mbaax ci jikko waaye nag way juróom wu sell wa sëñ Modou Mbacke Gelongal da daan wax koo gis muy ñoddee ko dafa mat la wut waaye ñi mat la sëkk du ñoddee ko muy bete bete Serigne Touba nag te wanewu ko fenn ci nan kuy sa maam sëñ Mbacke Kajoor kuy sa maam sëñ Omar mbakke kuy sa maam soxna Faati Mbacke moom sëñ Touba sëñ Touba dem wuramaat yu ñu dénk ko fa soxna suñ naan soxna penn bu ya ba mu Ibrahima penn bu ya xam ñooñu. ay nit yu baax lañ ay wàllu yu lañ ba ko jëlee mu ñëw am moom sëñ Modou Mbacke Gelongal amak moom soxna Faati Mbacke muy maamam kon nag sëñ Modou bu fekkee mooy woy juram moo waral bete bete bi ndax sama maam Serigne mbakke Kajoor rek la loolu jar na lu ne sama maam. mooy soxna Faati Mbàkke moom sëñ Touba loolu jar na lu ne sama maam mooy sëñ sama baay mooy sëñ Moodu mbakke sëñ Moodu Mbàkke gelongal mu soxna Faati Mbàkke moom sëñ Touba kooku ba mu toogee gelongal ñi nga xamante ne sëñ Touba mooy seen waajur dañ ko daan fekk sax gelongal sëñ Omar Mbàkke bi mu toogee gelongal ñi nga xamante ne sëñ Touba mooy seen waajur dañ ko daan fekk foofa ca dal ba ca xam-xam ba ndax nag sëñ Omar dafay puso ci yoonu murit sëñ Omar dafa def lu nekk ci yoonu murit kon nag tey bu fekkee ni dangeen ñëw ci sëtam ñëw ci këram ñëw ci kër goo xamante ne foog naa ni fii sëñ Touba moo ko xàlloon jox ko sëñ Omar Mbacke gelongal ndax sëñ Touba dafa fonkoon sëñ Omar ba nga xamante ne fii ba njaareem fu sëñ Touba ni fii sama kër ci gannaaw kër gi kër sëñ Omar gelongal gi lu ko indi xam naa ne loolu nag après damay jox sëñ bi mu leeral ko xuus ci ndax li ma wax ci sëñ Omar rek lu lum doon rek moo ko liggéey ndax boo bàyyee xel boo demee fii ci kanam kër sëñ Touba ngay wax fii ci gannaaw boo demee Njaareem kër kër sëñ Touba ca gannaaw kër sëñ Omar kon nag sëñ Touba dafa am waaw dafa taxaw moom ndax nag day doomi sëñ Mbakke Kajoor mu yëkkati ko jox ko Cheikhul Khadim mu yar ko ci jukkoom yar ko ci sellam sëñ sëñ sëñ Touba da daan def bu ma saan waxtaan ah, da daan ah, woon leen ma Omar Omar day ñëw sëñ Omar day ñëw ci wetam am na benn nit bu ko mës wax ni Cheikhul Khadim ñun dañuy gis yow booy wax. da ngay bëgg sëñ Omar di ñëw sa wet mu ne waaw dama koy sàkku ndax sëñ Omar samay wax bu koy nettali na ma ko waxee noonu la koy nettalee ah, du ci yokku dara ah, du ci wàññi dara kon nag sëñ Omar di jëmm joo xam ne macha allah ci yoonu murit puso daf doon nas yoonu murit toll na foo xamante ne dama li may wax sànq rek sëñ Omar am na lu mu ci joué kon nag tey bu ngeen daggee seen yitte yëpp euh, ñëw kër sëñ Omar Mbacke Gelongal ñëw. kër euh, euh, sëñ Jili Mbacke Gelongal mu sëñ Modou Mbacke Gelongal mu soxna Fatim Mbacke moom Cheikhul Khadim dañuy bég lool xam ne ñëw ngeen nag fi ngeen war a ñëw dugg ngeen fépp fa ngeen dugg fépp foofa la waaye nag li naan oto boo gis dafa am garage bu muy teeree yéen a ngi doog a teer garage bi macha allah ma kontaan bu baax nag ci déplacement bi ak dérangement bi lii boo ko gisee mooy sama diggante sëñ bi du diggante borom kër ak soxnaam ndax bu doon diggante ak borom kër ak soxnaam demee na neneen mën naa ko yab wala mu miin ko ndax borom kër ak soxnaam bu yàggee mën nga ko yab wala nga miin ko waaye damay ànd ak moom na Cheikh Ibra sa maam doon ànd maamam waaye nag mënumaa dab nag sa waaye maa ngi koy jéem maa ngi koy jéem foog naa ni eh, ñu ngi may doog a takkal ticket bi ni ma Baay Faal a ah, man nangu ko mu neex ma lool nag yombut de waaye maa ngi jéem maa ngi jéem kon nag eh, ñu koy ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool tewer wér barke Cheikhul Khadim a amate na ko de a baax na de te nag kenn gënuñu sëriñ de barke Cheikhul Khadim ci baax ci am yar ci dal waaye nag Mbàkke li ma wax sànq way juróom wala waxoon sëñ Modou daf ni koo gis mu ñoddee ko dafa mat wut waaye ñu mat le sëkk di ñoddee ko waaw macha allah moom nag Mbàkke ñoddee ko tekkam gi ak dalam gi fa la nekkee fu ne kon nag ñu gëm ko ci mbaax ñu bëgg ko ci jikko ñu bëgg ko ci dal ñu bëgg ko ci ci ci ci ci fees del macha allah te wanewu ko Mbàkke ñu lu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ñuy ñaanal bisu bisu maamam bi ah waaw ndeysaan ndeysaan billaay billaay ndeysaan billaay billaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan lay waxati ko waaw ñu kontaan ma sànni ci loolu li soxna ki ne jili wax moom moom kañ ko duppee ba mu ganee àddina samay nopp cheikhul xadim ba mu yónnee rakkam ju sell ja ni ko demal nga génneel ma tur wa ni ko koo kee ganee àddina de boo demee génneel ma tur booy dem di waxi tur koo tase ramm nañ ko boo ñibbisee tamit koo tase ramm nañ ko moom nañ ko du duppee macha allah muy borom baxtaat sëñ jili borom baxtaat kon nag ñu kontaan bu baax ñuy ñaan yàlla Baye Fall giñ ma tuddee amu sax ba ma def yi fi Baye Fall maa ngi jéem maa ngi jéem maa ngi jéem jërëjëf kontaan nañ macha allah kontaan nañ bu baax. Jili Mbacke Baye Fall euh, comme ñu ko waxee rek nee naa ko kii dafa donn ki nga xamante ne moom mooy soxna Xadi Jatu ci. jaay njureelam jëndee ko taalibe ci sayduna muhammad ndax ñiy baax a ngi baax waaye dafa donn soxna bu Bousso mi ñu meññil xaadim rasul ci maam digganteem ak maam Mor Anta Sali waaye tamit dafa jaay njureelam jëndee ko ki nga xamante ne moom mooy soxna Fawade Wele mi nga xamante ne moom meññi tey mbokkum Serigne Touba di Alaaji Malick waaye da nga jaay sa njureel jëndee ko ki nga xamante si nii moom mooy maam Kumba Ndoye di yaay Limaamul Mahdi alayhi salaam ndax ñii lañ dundee woon ak seen borom kër ba tey yàlla def ñu jur fi jant te dootul fay abadan sondeel nag euh, dina nit waaye nit ki bu mu doon sondeel bul nital sa bopp rek te doo di niital nit ñi te te doo jariñ sa bopp waaye meloo ni sondel kon boog ñi ngi lay sant di la gërëm waaye wax nga lu am solo muy Serigne tuubaa digganteem ak sa Serigne Omar Mbacke waaye tamit danga nga nañ fàttalikuwaat ci ginnaaw ay jamono euh, jamonoy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom Muhammad maanaam Omar mënu ko woon a bañ a ñàkk jege ba rek ba Omar tuubee dugg ci lislaam yent bi bég na bég goo xamante si nii kon feddali kooku noonu nga xamante ne moom la euh, xaadim xam li tax mu topp Omar kon dafa mel ni xaadim rasool rasulilaay kon rasulilaay mooy xaadim rasool waaye Seydina Omar moomu noonu mooy Omar mii tey mi ñu meññil ki nga xamante ne mooy Serigne jiili Mbacke ci dal gi ci teey gi donn turandoom ci ci ci tuuti bi donn tamit xaadim rasool parce que bu nee doomu tey sëriñ Touba ñu ne sëñ sëñ Abdou Khader moom rek a nuru Serigne Touba waaye tey ba mu nee tëll fii gis naa tekk gi ci xaadim rasul bi ne ci moom parce que la ca maam sët a koy jël ndax gerte boo ko jëlee nga gas ko suul laataa mu doon gerte dina doon maam doon baay soog a doon sët kon sët ba moo ñëwaat kon la nekk ca ay maamam moo nekk ca moom kon boog ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér waaye sëriñ Aline Ndiaye Modou Ndiaye euh, jóge ba mbuur euh, yor daayira bu mag bi ñëw fii nga xamante ne tey moom mooy kër sëñ jiiri Mbàkke dañ koy jox rek moom it mu daal ci sànni ay kàddu euh, digganteem ak sëriñ bi tamit li nga xamante si nii moom lañ taxawee ak noonu lañ àndee jëm ci li nga xamante si nii moom mooy màggal gi bisimilah. waaw sama jëwriñ ñoo ngi lay delloo ziar te di la ñaanal suñu borom mu dolli la jàmm ak tawféex ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi ñoo ngi am mbégte mu rëy rëy Mm, di ñaan seen rajo bi yal na ko suñu boroom yokk ba ba fi ngeen bëgg mu àgg yëpp suñu borom àggale ko fa muy mel ni ñu leeralaat tuuti ci eh, diggante sëñ Jili moomu nga tudd ak ni mu demee ci kër sëñ Tuubaa muy mu mel ni sa soxna aw am na lu mu ci leeral eh, mais am na mu mel ni lu ci des tuuti rek ñu bëggoon cee yokk loolu nga xamante ne moo ci des muy mu mel ni sëñ Omar Mbàkke moomu mook sëñ Touba ñoo bokk baay suñu boroom dogal sëñ Ibra Mbàkke moom mooy waajuru sëñ Omar Mbàkke Mamor Anta mooy waajuru sëriñ Touba bi nga xamante ne bii sëñ Omar moom mu gane na jamono sëñ Touba ñaan ko waajuram mu góor muy sëñ Ibra Mbàkke bi nga xamante ne bii mook Mamor Anta Sali ñoo bokk yàlla dogal mu jox ko ko bi mu ko ko joxee sëñ Tuubaa moo ko dalal njàngum alxuraan moo sëriñ Fàllu ak sëñ Moodu Mustafaa yar leen jàngal leen ba suñu boroom dogal mu nekk fi ba suñu boroom dogal mu war a denc sëñ Tuubaa jël doomam bu jigéen muy soxna Faati Mbàkke jox ko sëñ Omar Mbàkke mi mu bokkal baay kon loolu day mel ni kon <laughs> boobu jaxasoo moom foofu la jaxasoo mën a yem xanaa waaw mu mel ni jaxasoo ci waajur wu góor jaxasoo ci waajur wu jigéen kon mu mel ni euh, sëñ ji li ci bu ci foofu ci la foofu la foofu la jaaree bi suñu boroom dogalee sëñ Omar moomu sëñ Tuubaa jox ko leeram mu am ci sëriñ Modou Mbacke ak soxna Faati Mbacke moom ñuy wax noonu ak euh, sëñ Abdou Karim mii muy ñetti bant sëñ Modou Mbacke moomu nag mooy waajuru sëriñ Jili mii mm, moom it su suñu borom defalaat ko beneen cër bu rëy rëy ci ci ci loolu ndax bi nga xamante ne bii sëñ Omar dogal na mu am ko da koo jël tudd ko sëñ Abdou Khadir daa di ko koy jox <laughs> waaw kon loolu beneen cër ñëwaat na boobu ci biir cër waaw waaw di way di continuer waaw te comme noonu nga ko waxee rek ci ne dal gi. Mm, am na lu mu ci roy ci sëriñ bi loolu ñun seere lañ ci loolu ndax suñu ànd ak moom léegi mu yàgg nag ndax lu jege ñaar fukki at loolu nekkatul ay caaxaan soo ko àndee ak nit war ngaa xam ci moom dara te diirub ñu xam ko ba nëga ni tey jii la xamoon ci moom bañ koy xam ci njëlbeen ba tey jii loolu rek moo nekk ci moom lu ci yokkuwul wàññeekuwul ci mbaax lu ci yokkuwul wàññeekuwul ci mbaax te nag loolu rek su buñ ko doon seet ci nit lu lu jafe-jafe ci nit a ngi noonu ànd ak nit diirub ñaar fukki at na ngeen ànde woon ba nëga ni amul lu ci soppeeku lu dul lu dul lu lu ciy soppeeku lu baax la tey day day yokku wante amul lenn loo mën a wax ne sëñ bi wax na ma ko wala sëñ bi xoole na ma ko wala sëñ bi def na ma ko amul benn taalibe amul benn taalibe bu mën a wax loolu ci ci moom amul te nag nit ñi nañu moytu nag bëgg lu neex nit ki sëñ bi ba nga koy ba ngay wax loom du dëgg nañ nañ moytu loolu loolu nañ ko moytu te maa ngi waat ci seexul xadim fasuma yéene di wax lenn loo xamante ne bii damay bëgg lu neex nit moom ma koy wax déedéet man toujours bu may wax rek li ma dund ak li ma yëg rek loolu laay wax te waat naa ko ci seexul xadim li ma la wax nii lu ma dund ak moom la kon lépp lu ñu wax ci moom des na ah, des na waaw des na ndax xam naa ni li boo doon tey jii li beneen beneen bunt bi nga xamante ne bii moo gën a jafe ci jamono jii ñu toll nii muy nga jébbulu ci ab sëriñ mu bàyyi la ak sa sago bàgg bàyyi la ak sam xel bàyyi la ak sa dal du ne la jox ma ñaar dërëm du la jox ma ñetti dërëm du la jox ma dara lépp looy def yaa koy def ci sa yëg-yëgu bopp xam ne sa diggante moom am na loo war a def rek nga def ko wante moom du ne la lii nga may jox wala lii amul loolu yaakaar naa lu tumuranke ci jamono ji ñu nekk la lu tumuranke tey jii boo doon xool tey jii sëñ bi euh, ku fi jébbul si nit ah situation yu bari yu nekk këram yaa yaa koy gérer te moom day day day jël alalam di di ko dimbalee taalibe yi ndax màggal gii li gën a doy waar ci màggal gii man mii nga xamante ne bii def nu ma jëwriñ suñu borom dogal bi ñu saytoo ñun waa waa waa waa daayira yépp ba suñu borom dogal am lu mu dénk ñu ne nañu am yéene fàggu ñaari nag bi ñu fàggoo ñaari nag yooyu ak li ci war a dem yépp ci bés bi ndax ma ne sëñ moodu dinaa fàggu weneen nag joxaat la ko yónnee ma trois cent mille loolu yaakaar naa tumuranke na nag it ci ci jamono jii ñu toll nit ku nit ku nit ku ànd ak sab bi di doxeek moom noonu pourtant bu ne woon seen ñaari nag yooyu ngeen wecceeku de ni ngeen fexe ngeen am ñeenti nag pourtant lu mu metti metti dinañ tuñ tuñu fu ñu dugg fa ngir lijjanti ko wante yërmandeem ji yërmande ji ak bëtub yërmande ji muy xool ni mu àndal tax mu ne loola moom it bés bi ginnaaw li li li ci ñëpp bëgg moom la ci bëgg kon na àndak ak ñëpp ci liggéey bi te yemul foofu daanaka fii ba màggal gi jeex ñun ñooy moytu yenn saa yi ñu di ko moytu ngir ngir bëgg sax moom du ci def dara mais du la may benn bunt bu tax loolu mën a am te loolu nag lu jafe na jafe jafe jafe jafe ci jamono ji ñu tool nii kon wax dëgg yàlla lépp lu ñu wax ci moom ci mbaax ci yërmande ci dal des na ku ànd moom ku ne xam nga loolu boo wéetee moom sax da ngay jàpp ne kii man rek la bëgg fekk booba <laughs> noonu mu la ko defalee <laughs> noonu la ko defalee taalibe yëpp te loolu nekk lu jafe la kon noo koy ñaanal bu baax a baax Mbàkke saa borom guddal fanam yéeneem ci taalibe yi suñu borom may ko tawféex ba mu matale ko taalibe yi li ñu yéene ci moom suñu borom may leen ay xéewal ba ñu jëf ko ndax ànd ak moom de daa yomb te jafe ndax àndak ak moom jafewul de boo xamante bu ànd ak moom du la sonal ah bu ngeen àndee ci yoon sax mu mu bu bu jëndee ndox mu sedd jëndal la ko bu jëndee sëriñ ci jëndal la ah kooku ànd ak moom jafewul de jëwriñ waaw loolu de ñoo ngi koy seere te yàlla rek a tax ñu di ko seere ndax it nit ki war naa moytu wax lu dul dëgg ndax sëñ Tuubaa nee na bàyyi wax lu dul dëgg moo gën dëkke jàng alxuraan kon wax lu dul dëgg rëy na kon noo ngi am mbégte bu baax a baax di ko ñaanal suñu borom yokk ko barke Seexul Xadim asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf. ki nga xamante ne moom mooy Serigne Djily Mbacke Ngolongal comme ni ñu ko waxee rek nee naa la euh, euh, moom mi ngi wax sax ndawalu guddi la waaye ndawalu guddeeg bëccëg la. ndax eh, bu doon guddi gi rek day metti waaye ndawal guddeeg bëccëg la foo ko làmb daj ko loolu la yàlla nattu ci moom waaye ki nga xamante si ni eh, eh, balaa maa ñëw ci sëriñ alaaji sëñ alaaji ma daal di soxna si jugee bi ànd ak mbooloo mu takku la xam naa ne dafa am lu mu ci bëgg a sànni rek jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy soxna Awa Jili Mbàkke Baay Faal xam naa ne dama koy jox rek mu daal di am lu mu ci sànni rek bu ñu pare <laughs> asalaamaaleykum ma ngi nuyu mbooloo bi yëpp di kontaan ci teew fii di dal ci kër seen jéele ab kontaante bu rëy la nag ci ñu Gàmbi ndaxte bi mooy suñ ñaareeri yoon ñu fiy dal kontaante lool nag mu ñu fi indi ñu ñëwaat di fi dal ab yaatu boobu ngeen di wax ci moom ak dal bi ak bëti yërmande ba mu ñuy xoolee moo tax tey ñu ñëwaat fii daaw bi ñu fi ñëwee dama fi ñëw ak mbooloo ñëw fi ak sama mag bu góor boo xam ne ñoo bokk ndey ak baay tey nag yàlla def ñuy ñëwaat moom mu wàcce liggéey mënut a ñëw seen ji li def lu rafet ba mu ko déggee dafa bàyyi lépp muy def mu ngi tukki de mm-hmm. waaye daa ebal doomam tuut tànkaam mu ñëw ba bi àndaa jóorin bi ak fàllu nekk lu rëy loo xam ne defal nañu ko ñu koy bëggee bu baax a baax a baax di kontaan lool famille bi amul ku kontaanut démb ñëw nañ ak oto bu mag fii lu ko waral mooy seen jéedi yàgg nañ di ñëw Touba yàlla dafa def ñu bokk si njabooti seen Touba ñu mii ngay gis ni suñ maam nekka njaareem kër gu mag këy sëñ Bay Saar sama maam sant Sarr sama ñoom yaay yëpp sant Sarr ñu am kër gu mag fii ñeende màggal bu ne foofu la ñuy dal waaye ji nañu teraanga boo xam ne de goo ma ne nañ ko ba moo tax tey ñu romb foofu ñu wàcc fii ak oto bi am na ñu bàyyi foofu nag waaye foog naa ñi ñëw fii moo ëpp moom mi moo ñu ko ji ak soxna awa bu baax bii nga xam ne tey buñ xamee seen ji moom moo ko waral nekk bi yàgg fa lool di liggéey liggéey bu baax doon ànd ak suñ président bi yaay ak Jammeh bi nga xam ne daa bëggoon soxna Awa mii bu baax a baax a baax a baax ñu ngi kontaan bu baax si soxna Awa moom tam yaay faalam bi ñuy wax nii yokk na ma Pastef man mii ba nga xam ne li muy doxeek ak waaju sëriñam bi man noonu daa fas yéenee doxeek sama sëriñ waaw ndaxte gis naa lu rafet lu muy def waaw incha allah fas naa ko yéene bu baax a baax ba roy naa ci moom lu bëree baree bari moo tax nag ma suñ ñëwee dañuy simi yëpp def suñ laxasaay bu oyof ñëw parce que dafa am lu luñ ut si nag te ñu ut si nag foog naa ku ñëw ba si sa sëriñ foog naa am na loo xam ne lu nga war a fas yéene wut si ko loolu moo waral bés bii nii tey di sant sëñ Touba bu baax a baax a baax di kontaan ci mbooloo bi ñu fi nekk ñëpp. nekk euh, Sénégambia. ndax euh, boo nee Sénégambia rek Gambie euh, doomu ndeyu Sénégal la te Gambie tamit ak Sénégal ay mbokk lañu ndax lii mbokk gu rafet dong moo ko war ba tax na euh, ñu ngi koy santaat bu baax soxna Ami Collé ci déplacement beeg dérangement bi di wax ne Serigne Djili Mbacke Golongal kontaan na. Euh, ki nga xamante ne moom mooy soxna euh, Awa Jili Mbàkke Baay Faal kontaan na euh, ba tax na tamit am na solo trop trop suñu sa contribution ci li nga xamante ni moo jëm ci màggal Touba waaye tamit suñu yaay jee ñu ngi koy gërëm bu baax a baax macha allah soxna Kiné di ko wax rek soxna Kiné Jili ñu ngi lay siyaare bu baax ndax wax ji am na solo. ndax ki déparé woon ci ci ci ci ci ci luye ci ci luye oto paas dugg nga yàlla di dox tey ba nga dem tey ba yore sa yëfi bopp loolu yokkute la ndax yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànki kanam rek la am waaye tamit kóllëre gi matale nga ko ndax bëri na ñu fi formé ñu fi defar ba ñu mën ñu dem ba waaye nag fàttewoo démb yal na yàlla taxawu la sëñ Jili kontaan na trop ci yow waaye dañuy jox sëñ alaaji euh, sama waa ji euh, le temps euh, waaw waaw sëñ ji après kii annoncé ma turam léegi ma dugal ko incha allah ci kàttanu yàlla sëriñ bi ñu ngi lay nuyu papa di la siyaare. di la jox wàccuwaay bu la suñu borom jox di la wax yaa ngi fii ci kër sëñ Jili Mbàkke euh, Golongal euh, tey sa teewaay ci bis bi. mbokk yi ñoo ngi leen di ziar bu baax ci bis bi ñoo ngi leen di ziar bu baax ci bis bi di ziar nag euh, ki ñu fi tax a ñëw muy sëñ jiili sëñ Jili nag moom damay faral di wax benn wax rek dama naan bu ma ko gisee dootuma ànd ak sama xel dootuma ànd ak sama sago. loolu nag mbir suñu borom man mënu ko expliquer te sëñ jili waruñu boppam it wallahi barke tuuba ak Darou Salaam sëñ li waruñu boppam seen jubba ci ci ci defar la la nekk ak jubbanti ak yaatal man wenn saa mu toog ak euh, nit ma bàyyi leen nopp tuuti waaye damay xam ni kii li sëñ bi mi ngi koy defar te yëgu ko <laughs> waaw ndax xam nga wenn saa nga toog ak nit ñaari jëm yu jàkkaarloo jëmi ju toog ci suuf dafa toroxlu toog a jëmu jinne ci kaw pour kooku soppi ko mais ma mu leer ma leer ma ni kii bi fi jógee dana defaru ndax xam nga kii li liñ lay defar liñ lay defar buñ la koy wax da am équilibre li lay wax ji lay defar buñ la koy wax da ngay am équi da am équilibre mais li ngay wax bu bu na boo nata defar doo am équilibre <laughs> waaw sëñ bi nag noonu la mel moom dafa ñoo wonu wonuñu boppam maanaam ma gi cofeel gi ak ñeewante gi wallahi azim ci taalib bi yëpp la law ndax nag lu romb 15 ans jëm 20 ans bu bu ndey caaxaan xam nañ bu dul caaxaan xam nañ te nii mu nii mu goree noonu la maandoo wallahi sa njëli li ci sonalul benn taalibe billahi wallahi taala sonalul benn taalibe te loo ne mu nekk ci ak yow muy bànneex muy safaan bon nag ñun dañuy ñaan ci barki bis ak barki mboosu mbootu yi sëñ bi bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi lool te buñ gisee gisuñu waaw ndax nag sëñ bi moom moom dama ni euh, ku ne ku ne yëng ci sa bopp soxna aw lii muy def nii waaye daf ci yëg boppam sëñ bi wenn saay am am na am na xel yoo xam ne balay yàgg nga taxaw ni ah xaaral ma tooxanoon parce que maa ngi xelu te wax dëgg yàlla xel yi moom du ma ci gisul dara mais xel yoo xam ni yow da ngay daw mais da ngay sentir na nga sonnoo sonnoo xam nga xel yëpp xel yooyu ci dàq xel am na xel yoo xam boo bu doo jéego boo jógee fi bala ngay àgg ca jumaa ji sonn mais euh, am na xel yoo xam ne nag la ngay la boo gënee di daw di gën di am di gën di loolu nag mbiru mbiru suñu boroom la te sëñ bi dafa am lu ko euh, maam defal loo xam ni ñun wanuñu loolu de ndax mënoon nañ bu guddee du ma nelaw bu guddee damay nekk ci jaww jéeg asamaan si waaye déedéet sëñ bi ki ñëpp ci ki toog ci moom rek jubbanti na la defar na la ci ngay mag nag ngay ndaw ci fànn bépp nag dana la jàngal comportement yarute xam na waxe ci biir mbooloo ak nag beneen bi nga xam bëgguma ko wax nag boobu mujj bi ak silvissé gi <laughs> waaw ban nag Mbàkke ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi dagaan Serigne Touba sa maam ak mbootu xaside yi nga yàgg fi lool lool lool ñu yàgg koy teewee lool suñu yéene yëpp mat nag suñ diggante yow jërëjëf ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax man nag maa toogal sëñ bi ci Kaolack waaw man maa maa fi représenté waa Kaolack waaye yàlla nañ ko teewe ay déwén yu bare bare bare bare bare soxna Awa Jili jërëjëfati euh, jërëjëf euh, suñu papa alaaji si témoignage yi am solo yi nga xamante si ni euh, wax na ko jëmmale ko si ku tedd ki di sa Jili Mbàkke Golongal tubaarkàlla macha allah ci tarbiya ndax nit dina la xool sax nga defaru loolu la gis ci moom ba tax na tey si aas bi mu toll ak tamit ni muy waxee nga xamante ne ci xol ba la ko tibbee di ko wax ndax lu jóge ci xol ci xol rek lay tàbbi kon dëgg rek moo wóor parce que loolu la seede tey ci ki nga xamante ne mooy sangam bii toog ci dal gi loolu boo ñëwee di nga ko gis ndax euh, ñun ay nitu presse bu ñu xoolee nit rek dinañ xam waaye tamit euh, loolu bu melul noonu rek tooñ ndax kiñ la tuddee nga ne sëñ Abdou Khader ci dal ga ci xam-xam nga ci yar ga ci dignité ga macha allah yal na yàlla guddal fanam. waaye dañuy continuer ak suñu kilifa gi. bisimilah salaamaaleykum wa waaw man de lu may wax de moom maanaam daanaka sëñ Jili de man de ñu ne amuñu lu dul moom man daal ma wax ci keneen lu dul ci sëñ Jili rek te lépp lépp lu mu ci wax tamit xam naa ne astuur laa ci ndax sëñ Jili daal day kenn ci ñun man de dama naan suñu tiitër la ma de sama tiitër la ndax waaw <laughs> suñu waaw <laughs> waaye mu maas noonu bi kon ndax xam naa ne su ma waxee de. yàlla doo ngay tax may wax ndax li may wax man dafa fekk ma dund ko bar sëñ dum ko dund xam nga daanaka du ñuy wax nga am sa sëñ saa soo ko nuyoo mu jaar su tur su la gisul sax léeg-léeg su toogee jékki-jékki woo la ne la ah sëñ Faye defal lii ak lii nga xam ne kii mu ngi lay nemmeeku xëy na yow yaa nekkul ci dara de wante moom mu ngi nekk ci yow nga xam ne léppam diine la yóbbu naa fi ay nit saa yu ñëwee duñu mujj duñu toog daan sa sëñ bi de lu ñu jaaxal ci moom saa yu ñëwee penku lañ ko fekk mu toog saa su ñu egsee ci moom mu ngi ko fekk mu jublu penku mu nekk tiitar ci ñun sama waajur bu feebar na tëdd mënul jug sëñ bi bu mu egsee kër ga sama waajur dafa jug toog ci kaw lal bi ma génn ci néeg bi bàyyi la ñoom ñaan ñu waxtaan lu yàgg yàgg yàgg yàgg bu mu ñëwee ba sëñ bi bu sëñ bi demee mu woo ma ne ma monsieur Sky ma ñëw mu ne ma kii sa lan la nga ne ma ne ko sama sëñ ma ma ah monsieur kii de jàpp ko parce que du jafee ngi nii mu ne kii de xaw ma kan la day <clears throat> wante téye ko bu baax téye ko wax sa fukki loxo mu ne ko waaw ah, baax na ma xam ne sëñ bi ma xam ne kóllëre rek amu solo. ndax mënoon na ko bañ a def te du ko jëriñ dara sama waajur bu góor génn àdduna mu dellu si waat ñëwaat kër ga bu mu ñëwee itam bu mu génnee dem ku nekk naan mu waa ah waa monsieur ne ah yow de sëñ moo ñëw di jaare ma di ñëw ñëw jaare si la. bu ma dugg see ci bu ma dee bu ma gungee ba ci buntu kër bu ma duggaatee ku ñu nekk ñoom ñëpp ñu wër ma ku nekk di wax. ne ma ah yow de ko ndey ka taalibe nga yow de sa sëñ bi comme que yow sa sëñ bi moo ñëw moo déplacé wu fi lii de lu jafe la ñu toog ji ko tiitaroo nag. ndax man xam naa ne moom fu mu ma jëlee ba may liggéey ba ba may ba ba may arrêté ba ba may dem retraite xam naa ne moom <clears throat> li mu def ci man ah du sant rek du ñuy sant rek ndax bu ñu bu bu ñuy commencé gars yi di romb di romb di romb di romb mu ne ko ah sëñ bi gars yaa ngi romb rek de te man de wu ma de mu ne waaw maanaam su loolu kii rek dal naan waaw rek baax na rek ñu jàpp ci waaw bi rek ba keroog bu mu jotee. bu <coughs> ñëwee ne ko ah sëñ bi de gars yi dëgg jàll lañ ma def nañ def nañ ma patron de def nañ ma chef de service maay jiite maay jiite Kaolack après su mu jugee foofu dem naa Fatick jugee Fatick mujjee euh, Fuuta Matam <coughs> waaw te xam naa ne man <coughs> du sama du sama jàng waaw du sama mën-mën it parce que xam naa ne ab ndimbal dong la xam naa ne su lu moom mii xam naa ne man du ma egg foofu moo tax man sama teaser la sama teaser dama naan sama sama sama dund gi li ci li li may dund li ci des nii yëpp moom ko moom parce que toll naa ci ay jamono yoo xam ne feebar ba nga xam ne dañu naan dana dee am du dee nit ñi di ma daw mu ñëw jox ma ne ma am téyal boobu ba léegi ah man de maa ngi doon sant waaw man de dama dama dama naan de daf ma delloo si. mu ne ma ah sëñ Faye dinañ liggéey de pare guñu dinañ liggéey lu bëri de ma xam ne man moom fu mu nekk nii ah jooyatuma dara de waaw jooyatuma dara de ñu ngi sant daal ñu ngi sant yàlla di ñaan suñ ji li yàgg fi lool lool te àndax wér moo tax de nee naa ko sëñ bi daal ñun daal fu mu nekk nii comme que pare nañu dimbalil gune yi gune yi ñoom ñoo ci des waaw ñun daal moom xale yi taal leen nag waxatuma sax nga naan leen ay ñaanal leen ñaan gi sax moom daanaka dafa xewi man nee naa ko ngay tàllal nga naan leen bismillah waaw yàlla na yàlla def mën naa ko sëñ bi bàyyi yàlla na te nga def waaw parce que xam man xam naa yow mën nga te ñun xam nañ ne mën nga taalal gune yi ndax gune yi nañu ñu ah? man ñam naa man ñam naa te ma moom xam naa lu xaq ci nga xamante ne nii moom la ku tedd ki xaadimu rasul santaane ci kaay leen santale ma sama boroom jëmm yëpp jóg laxasaayu teew ngir jëfe ndigal li nga xam te ne moom la ku tedd ki santaane ci anam yi mu ko waxee alxuraan ji xasida yeeg bernde yi kon kenn ku ci ne ku fi teew ay yiwa la fi indi ak sàkku ay yërmande suñu boroom ndax moom suñu boroom sedd na ko la mu koy sédd ci ay xarbaax sedd na ko ci la mu koy sedd ci ay may ñu sàkku si fii ak ak ak ak jaamu yàlla gu rëy rëy rëy ci boole ñu kook suñu sëriñ sëriñ Jili Mbàkke te lam ñu ciy sant mooy la sëriñ bi ku tedd ki santaane kenn ku ci ne bu jokkook yow wala mu jëflante ak yow mooy liggéey jaamu yàlla te ku tedd ki loolu la santaane te nag ñu fas ne jëfe ndigal loolu nga xam ne moom la ñuy sant saa su ne bu muy njëkk a wax ak yow ndax yaa ngi matal say waxtu juróom yaa ngi nangoo liggéey kon loolu rek la ñu deseel ku liggéey jaamu yàlla rek suñu borom defal sa àddina ak ndax ñëpp ñoom la ku tedd ki loolu la santaane kon nañ gën góor góorluwaat ci ndigal loolu nga xam ne moom la ku tedd ki di Serigne Djily Mbacké dañuy sant saa su ne saa su ne day wëy di répété nañ nangoo liggéey nañ nangoo jaamu yàlla ndax ku liggéey ku ne teraangay àdduna nga sa kaw ku jaamu yàlla ku ne teraangal yomal xiyaama nga ca kaw ak àjjanay firdawsi kon yàlla ñu ci yàlla saxal dëggal ñu ci jubal ñu ci ndax loolu mooy suñu tey ëllëg kon saa sune loolu la ñuy dëkk di leen soññe bu baax a baax ci loolu kon bu ko defee ñu ngi siyaarewaat ñëpp jégalu bu baax a baax euh, yàlla def na ñëw nañ teewe ci am lu ñu bëggoon a jàllalewaale ak daayira boo xamante ne ñoo ñëwoon pour siyaarewaale sëriñ bi ma ko doon yeggee léegi mu ne naa ko egg jëwriñ xam naa incha allah jëwriñ na ci wala sëñ bi di def ñaan dañ jox jëwriñ mu sànni ci kàddu yooyu euh, daayira Thiès bi ñëw siyaare sëriñ bi am seen xéewal bu ñu dajale woon fas yéene ko jaayante ngir sëriñ bi euh, daayira cees nag suñ koy wax sëriñ bi mu gën nañu xam daayira cees ndax ñoom soxna Awa Jili suñu maam nday fay male ñoom bu ñuy wax sëriñ Jili tey gannaaw Thiès cees ci la bokk ndax sëriñ Jili fa mu démarré cees la démarré ñi xam démb xam tey xam nañ kon tey Thiès bu jógee def àddiyam ñëw di ko ko siyaare loolu mbég tey sëriñ bi la comme na ma leen ko waxee woon rek Serigne Djily booy wax ba ne daayira Thiès day mel ni danga am dafa am looy luy dolliku ci moom waaw ndax ba mu fay doore dafa am ay ay ay jéego yam fa taxawe woon defar fa ay nit ñun suñ jëmm yi ñun ci lañ bokk waaw ñun meloon nañ ne leen di doxe neneen mu fekk ñu ci ay mbir yu yéeme ci saayire indi ñu tey ñu nekk ci ba tey ñuy mën a wax nit di ñu gis wala nit di ñu dégg kon loolu cant la gu rëy rëy rëy ndimbal ak suñu borom la itam man ak samay morom ak samay morom ay ndaw lañu woon tey ji gis na yàlla def na ñeewuñu kenn itam ci côté bu ne kon sant yàlla bu baax a baax loolu nag moo waraloon tax ñu bi ñu jógee ñu ubbi wax ne nañ soññewaat ci liggéey ak jaamu yàlla ndax ca lam ne woon démb ak tey jógu ca te loolu laa indi ndigal loolu laa indi preuve tey lii kon lépp looy mën a ne caxal ci ñaar liggéey jaamu yàlla foo liggéeyee di nga tedd ci kaw suuf ndax liggéey mooy maye lii jaamu yàlla nag fële lu la fa yóbbu mooy jaamu yàlla lal yi tax nga àgg àjjana jaamu yàlla muy jullee góor ak la ponk juróom yañ ca wax yëpp kon yooyu boo ko wàccul foo jaar di nga tàbbi te rawatina nga gàccoo ci ci ku tedd ku mel ni moom kon loolu ku am kilifa nag doo ragal kon nag sëñ bi ñu ngi lay santaat bu baax ci ndigal loolu nga ñu nga ñu ci woow ñu ci sax ñu ciy gën a sax nga ñu ñaanal yàlla xiir ñu ci bu baax a baax a baax ñu gën ci sax waaw ndax ndigal la loo nga xam ne gu neex a jëfe la gu neex a itam la ci kaw nga nangu ko taxam ko kon ja jamono ji jamono ju ñu nekk nii jafe na nga gis sëriñ buy doxalee noonu ndax sëriñ si ñu bëri riirandoo gi bari na mbumbaay gi bari na mbooloo mi bari na li saa su ne li ma leen di wax rek su ko neexoon tey mbooloo mi mel ni naka su du noonu mais ri déedéet moom lu am njëriñ lay wut reen ak garab reen ak i xob bokkul cafin reen aki xob bokkul ci cafin xob yaa féete ca kaw foo toll di ko séen waaye la koy safal ci suuf la ne mooy reen ya jëmm jaa ngi nii xaw ma la ma bëggoo xam ngeen comme déet kon fooy jaf jafal cay reen ndax lu yàgg yàgg rob ya xob yaa ñooy ruus fekk ci reen ci suuf nag fa mu ne du fa gaaw a jóg kon ñag nañ jàpp ci lii xam ne mooy dëgg ku bàyyi yaa ngi ca caaxaan lu mu munut amut lu mu tële amut yàlla rek la am ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa kon ñu ñaanal ko fi yàlla bàyyi ko fi yàgg topp ci ginnaawam mu ñuy digal sëriñ bi fii la yàlla fii la yonte bi fii la yàlla na yàlla yokk xéwalam kàttanal ko dooleel ko ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo mooy àndal te fas yéene liggéey sëriñ bi te yàlla rek tax yàlla ko yàlla def kookan la ñu ne sëriñ Jili Mbàkke Golongal lii mooy njariñ judul lore ndax loolu dafa leer nañ ndax olof dafay ne lu ne fàng kenn du ko jeex te wax dëgg du tax ba tey nga doon li nga doon te ñii tey li ñu témoigné ci sëriñ bu tedd bi yaakaar naa ne loolu dafay dëgg te ku ci nekk booy wax rek maanaam pa ngay waxee ci xol nga koy tibbee di ko di ko di ko wax kon boog macha allah yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel ndax olof dafay wax ne maanaam kuy sa baay ñu ne sëriñ Modou kuy sa maam ñu ne sëriñ Modou Omar ah kuñ la tuddee ñu ne ah sëriñ Jili ki nga xamante ne tey ba mu ganee àddina maam Thierno ba ko ku tedd ki ne demal nga tuddali ma ko waaye sëñ Abdou Khadir Jeylaani si la cëpp ci kanamam ne ko tur bi sama tur la mais maam Thierno avant muy gisanteeg sëriñ Abdou Khadir Jeylaani mu koy feeñu mi ngi doon wax su ma àggee sama bopp laa koy tuddee waaye nag ci biir loolu moom sëñ Abdou Khadir Jeylaani lan moo waral mu ne tey leer googu noonu nañ ma ko tuddee kon xam na li ci jiili kon boog macha allah kon boog moom bu ñaanul sax bu xalaatee yàlla defal ko loola. kon boog tek te tey loolu am na solo ci yar gi nga xamante ne moom lañ fekk ay taalibeem ñu yar ko waaye tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñu jox ko euh, li nga xamante ne moom mooy euh, kàddu gi bu ko defee mu daal di euh, ñaan rek am lu ci sànni waaye tamit golongal tamit bëggoon nañoo xam lu waral tur wi bu ko defee ñu daal di koy tëjee li nga xamante mooy parce que ngolongal dañ koy dégg waaye bëgg nañ xam cosaanu ngolongal lan la ndax bu ne Serigne Omar Mbacke golongal war nañu mën a xam loolu lan la moom nag xam naa dinañu ko leeralal waaye tamit di santaat bu baax waa Assalaamy euh, TV ak Assalaamy FM ci rajo bi waaye suñu kilifa Serigne fàllu Galas Sill euh, ku ne xam ko fii ci dëkk bi ci Touba waaye tamit santaat ki nga xamante ne tamit moom moo waral bis bi moo ñu yebal fii indi ñu fi muy soxna euh, Awa muy sëñ Jili Mbacke Golangal yaay Fallou Serigne Jili jërë ngeen jëf ñu daal di jox ki nga xamante mooy sëriñ bi. Euh, ku tedd ki mu daal di nuyoog mbokku téléspectateurs yi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziare mbokki taalib yëpp mm, di leen nuyu yéen ñi itam nga xam ne mm, sëñ sàmba ak euh, ñii nga àndal ci salaam TV mm, sànq ma ne sëñ Fallou Galas mooy borom télé bi. man la xam na kër gi lool ndax màggal Soxna Faty gi ñuy def moom moom lañ taamu sax ci avant première bi bande annonce bi waxtu ne moo koy def moom suñu Fallou Galass Syll kon ñu ngi leen di ñaanal yéen ñi fa nekk yëpp suñu borom dafa leen taw feex ci liggéey bu rafet bii ngeen di taxawee ndax lii yitte la seen kër rek Soxna Awa ak liggéey bi ngeen liggéey Sëriñ Tuubaa ndax lu baax rek ngeen di xañtu kon ñoo ngi leen di sant bu baax di leen waxit ngeen jottali ko suñu nuyoo ci taxawaay bu rafet bi ba ci desit xam naa mooy rek euh, sant ñëpp rek euh, ci gelongal jooju nga ma laajit ma leeral la ci tuuti xam naa ni ndax gelongal boo gisee gelongal ak Mbàkke Kajoor daanaka benn lañ ndax ki sañ ci gelongal man naa moom Mbàkke Kajoor firnde ji rek mooy kiy xalifa gelongal tey jii may wax yow mooy xalifa Mbàkke Kajoor ndax sëñ Omar Mbàkke gelongal moo nekkoon taaw suñ Mbàkke Kajoor waaye moom bi mu fereem soow rek mm-hmm. ba xaw a dëgër lañ ko joxoon Sëriñ Tuubaa mm-hmm. mu jóge Mbàkke Kajoor ñëw nekk fi fii Tuubaa mm-hmm. ba muy lu ndaw sëñ jëwriñ bi sax mi ngi koy nettali léegi sëñ bee ko dalal xam nga ko bi mu ndaw la moo ko dalal ba mu dëgër bi muy dem ci géej gi jox ko sëñ Daam Abdurahmaan Lo mu àggale àlluwam bi ñëwee da ko laajat téyewaat ko bi yàlla dogalee nag sëñ Mbàkke Kajoor ñibbi delluwaat ci boroomam sëñ Tuubaa dafa yebal maam Cerno Birahim ni ko demal ca Mbàkke Kajoor nga téyal ma dëkk ba ndax Amar Mbàkke mii nga xam ne moo waroon moom dëkk boobee kat mi ngi fii ci man te noppeeguma ci moom ndax loolu waral sëñ Omar demut demut mooy Mbàkke Kajoor waaye boobu sëñ ko téye mu nekk ak sëñ Tuubaa nekk ak sëñ Tuubaa ba xaw a dëgër daanaka jëruma ci jaaraat jëruñ nettal na ko ba mat a denc mu yëkkat doomam jox ko muy soxna Faati Mbàkke pend bu yo soxna Faati nag bari nañ waaye soxna Faati mi ñuy wax soxna Faati pend bu yo moom mooy waajur sëñ Muudu Mbàkke Gelongal ak sëriñ Abdul Karim ak soxna Ami Seex ñetti bant yooyu la fi am waaye sëñ Tuubaa ko yëkkati di sëñ Omar Mbàkke Gelongal bi loolu amee nag sëñ Omar moom delluwut demul Mbàkke Kajoor ba yàlla dogal sëriñ Tuubaa jóge fi waaye boo ko déggee sax nga dégg si nettali yi sëñ Ceerno ko nettali bi mu gën a nekk ndaw te loolu sëñ Moodu daana ko wax bi mu gën a nekk ndaw euh, nee na bi mu toogee ci Sëriñ mu jox leen këllub cere ñu cay jëfandiku booba gan la fa moom di door a ñëw rek ak sëñ Fallu ak sëñ Moodu Mustafaa mais biñ lekkee ba noppi euh, sëñ Fallu wala sëñ Moodu kenn da ko ci ni jugal jëlal bool bi jox sama baay demal demal ne sama baay noppi nañ ata ko ne demal ne sama baay noppi nañ bi suñu Omar demee ñëw ci suñ baay gone yi ne noppi nañ mu ko kon dañ laa yónneem ne ko waaw ñëw ba fekk fi toog mu tiim leen ni leen kii de bu leen ko yónneeti ndax seen baay la daal di ko ni Omar mu ne ko Mbàkke mu ne ma yow xàmmee nga baay ak maga nee ma ne cal mu ne ma loolu nga wax nag ñii laay seen baay waaye yow sa mag laa ndax ñoo bokk baay bi yàlla dogalee sëñ Omar sëñ sëñ sëñ sëñ um, sëñ Omar dem ba dëgër yàlla dogal ku tedd ki jóge fi nag xam nga jot a dem Mbàkke Kajoor moom waaye ci diggante boobu yi mu ko waxee ne bu ñu la yónnee ci nee diir bu gàtt kilifa yooyu ma la tudd dañoo génn di dem nee ma leen di xool bëgg ànd ak ñoom ne sëñ bi gestu ma ne da ngaa bëgg ànd ak ñoom loolu bàyyi cër ko nettali da ngaa bëgg ànd ak ñoom nee ma ne cal mu laajal ma ko ma ne ko waaw. mu daal di woo sëñ Mourou Moussa bu ñëw mu jël loxo sëñ Mourou Moussa jël loxo sëñ Omar teg ci ni ko ànd leen di bu mais mu daal di jug ànd ak ñoom dem loolu nag am na lu muy lu muy lu muy wanewaat waral bi sëñ ci waa demee sëñ Omar moom dafa laxasoo nekkaat ci gannaaw sëñ Mourou Moussa jàppale ko lool nag ci loo xam ni am na luñ mën a wax am na lu ñu mënta wax waaye ñi xam nag dëgg-dëgg ñi may waxal. mooy ñi xam yoon wii te bokk ci xam nañ sëñ Omar Mbacke Gelongal ni mu bokk woon ak sëñ Modou Moussa ci wàllu seeni ndey ak sëñ Basiru mi xam nañ ko kon dañoo bokkaatoon ci ay ndey ndax seeni maam bokk waaye sëñ Tuubaa boolewaat leen ci ànd leen ci bu leen tàggatu joojee tax na bi sëñ bi demee sëñ sëñ Omar moom ci sëñ Modou Moussa la nekk waaye jàppale ko nag ci lépp sëñ Modou sa nag mooy doomi sëñ Tuubaa sax nag ndax lépp nag ci ndimbalu suñu Tuubaa rek la waaye bari na yoo xam ne daana bëgg yàqu bu ama taxee du yàqu mu nekk ci liggéey boobu ne ci liggéey boobu diggante boobu nag ñu bari sanc nañu ay dëkk ñu sëñ bi seexaloon ñu bari dem nañ ci ay dëkk nekk ñenn ci nekk sëñ bi ñenn ci ci gannaaw sëñ bi lañ sanc waaye sëñ Omar seen bii la bokk muy sëñ Mourou Moussa ak sëñ Fall ñooñu lay maaseel xanaa day jàmbaar rek waaye ñooñu la maaseel moo waral moom sancutub dëkk nag am na ay dëkk yu jege Tuubaa rek yu mu dëkkoon waaye fii ñu wax Gelongal nag moom sëñ Basiru mii tay moo ko jox bàyyi suñ mu taxaw moo jox sëñ Omar Mbàkke Gelongal suuf sii am na nag àll bi daa tuddoon Gelongal sëñ Basiru moo toog yàgg mun mii kat boo mutul dëkk topp sunu sunu sunu sunu waajur rek te yor naa fee suuf soo xam ne war na ko moom di mbokkam mu ne ko naa fa suuf soo xam ne mën ngaa yebal sa ndongo yi ñu dem gore ci la ko jox suuf soo si ñu ñu dem gore ko moo waral ñu naan ko gelongal waaye daaru sàkkur sax la tudd ñu naan ko daaru sàkkur gelongal waaye xam nga day mën a siiw neex a dindi waaye jëmmi àll ba mu tuddoon <laughs> da boo dafa naqare wax sax waaye gelongal waaw waaye daaru sàkkur nag moo nekk ci kayitu dëkk ba mm-hmm. waaye sëñ Basiru moo ko joxoon suñu war loolu mooy cosaanul gelongal ginnaaw bi suñ demee ci la ko suñ Omar sant noonu la gelaw nga demee a kon kon la ci des rek mooy sant taalib yëpp def naa loolu nga ma laajoon waaw waaw <laughs> ci des rek mooy sant sant taalib yëpp rek seen taxawaay bu rafet ñoom ñëpp uh, niñ ko waxee léegi ku ci nekk da ngay jàpp ni uh, yow rek yaa war a baaxal yow rek yaa loolu nag sant yàlla ndax ni ko jëwriñ waxee bari ne kër yoo xam ne mën ngaa jël jëwriñ tabb ko daanaka xeexu lay mujje wala wala kër gi tas waaye loolu ñu amu ci seen biir ndax kenn ku nekk ñoom jàpp nga ni yaa war a defar dañuy diisoo jëwriñ nag ci jëwriñ nii lañ jëwriñ it woyofal boppam lool di déglu ñuy diisoo moom te loolu mooy jëwriñ moom jàpp ne ka gën a ndaw bu ñëwee di wax ak moom dana ko déglu ñu xool la gën a rafet ñu def ndax lim ko waxee léegi jàpp na ne lu baax moom dañ ko jàppale rek lu ca sikkit dañuy jàpp ne moom kon donc bu mu ko xamee ñu leen di sant bu baax a baax muy sëñ Modou Ndiaye mi sëñ Jibi Guèye moomu ak sëñ Alaaji mi sëñ Yees Fay mi nekk Dakar ñu leen di sant seen taxawaay soxna Ndeye Fay mi nag ni mu ko waxee léegi rek moom yàgg na lool mooy cosaanu daayira waaw waaw yàgg na fa def ay cant yu mag mag di taxaw maa nga fàttali ko waajur mu jigéen daf ko wax ne ko sëñ sëñ sëñ jiile rek moo ko soxna ami mais di jàmbaar baayam ñëw na fii moom bàyyi sëñ man ni ma sëriñ jiile ma ne ko amu ami de sab cër la yow yow la ko suñ tubaa sedde xam naa loo ko wax mu def daal di am lu mu doon lu mu doon sàkku man de quoi mu ne ma waxal ma ami loolu rek boo ko waxee dina du ci teg baat waxee dina ko def waaye day jigéen di man góor moom itam nii góor yàlla di waxee bay daanu moom foofu lay àggale waaw ci ci lépp di pëseef waaw kon ñu ngi sant soxna Ndeye muy bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaayam ak ak ak jëflanteem bi rafet ak bëggum baax ni ko suñu mën waxee rek ñoom ñii. nga xam ne ñooy waa Thiès la ñuy def ci mbuur dañ koy def ba noppi defaat sëñ Modou Gissé mii moo fa nekk ndax ji bi moom mi ngi Dakar léegi waaye la ñuy la ñuy doxee doxe doxe ci jëwriñ ji nekk mbuur mooy sëñ Modou Ndiaye nañ fay doxe dañ koy doxe ba noppi doxewaat loo xam ni seen seen seen seen seen seen addi rek li doon muy muy kii ah loolu kon lu rëy la noonu la ko sëñ Yaas Fay mi defe ak sëñ Alaaji mi ku ci nekk la la war da koy def boo ko defee ba noppi doxewaat noon moom moom Gàmbi la jógee daaw bi mu ñëwee fii dafa dafa takk takk la xasaayam loolu boo xam ne daa am lu ñuy dëgg wér la ci moom damay mujj sax yërëm ko damay woo Soxna Awa mii ne ko yow moom ni ngay doxe kooku àndal dana sonn dafa bàyyi faal nga moom bu màggal ñëw di sonn moom Soxna Awa waaye day lonkaale Soxna Ami mii ba sonnal ko lool coono boo xam ne ëpp na eh, daanaka bu ñu xasee ñëw duñ dal duñ nappalu waa Kawlax yi moom suñu laaj leen kon ñu ngi sant bu baax a baax di sant itam sëñ Modou mi sama sama doom la waaye ci taalibe bi la bokk nettali naa ko ba tey moo sëñ Fallou mi euh, seen taxawaay itam am na solo ñoom it dañuy xool rek nu mu gën a baaxee ñu ñuy doxee noonu lépp luñ jàpp ni lu baax la lu rafet la day jàpp noonu ñu war a doxee loolu nag kon lu am am solo la day ñaan rek suñu borom gën leen a taxawu gën leen a jàppale waaye nag ku leen ku leen ku sàggan nag ñu jëlee fi bàyyi la loolu nag du